الله ربي عاصم مولاه إلى زمن باب توثيق القوم صداه الأعظم منزئه سبحان الله ربي عاصم مولاه توثيق القوم زاداه إنه بارد في الأوصاف عاليه قبل الكائنات يا الله توثيق القوم زاداه محمد المصطفى يأتي من عين فالروح الأعظم يا توثيق القوم زادوا فتنا بلد الله إلا نملك فيه من عالم الملك لله إلا الله عليم روي العصام عليك رضوانه العجيب أبو توثيق القوم زادوا مالك المولى ونقل فتاة mu ne xalifa Leona mooy Alaaji Abdoulaye mu ne xalifa Medina mooy Alaaji Abdoulaye mu ne xalifa Touba mooy Sëñ mu ne xalifa Ndiassane mooy Alaaji Abdoulaye Thiaw Laye kon nag kooku suñ te woon ba ko ko maam Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tur mooy Sénégal lii moo tey Sénégal ay Abdou Tour doon sa ko la tax mu ne gaal gaa ngi daw ci ay wax yi tajri bi ayunin demal nga seet alxuraan te xam na ko ñëpp mu ne ko si man man dama xool saal baa ngi dem koo ku ñuul ma xam na ñas yaa maram njaal balaa ma ñëw moo def. mbokki taalibe yi mbokki taalibe yi may ci sa wiki tànk wallaahi jigéen étage bële pari mool lañ ko dajale da ko teg pari mool pari mool pari mool ba mu toll nii seet woon nañ jaww ga daaw jéeg sampu tig yii seet ngeen jéego defar tribune bii waaye ponk lay wax de dëgg buñ ci teguloon baax kon mbokki taalibe bi maa ngi wax képp koo xam ne ñëw nga ci kaw moom ñu ne na Alaaji gi nga xam ne Cheikh Mouhamad Ndaw imam bi mu yéegee yokk gàmmu gi yokk na ko maa ngi ñu xuut baas teg ko ci kaw tribune bi poto yi moom yéen a ko moom tribune bi yéen a ko moom waaye ànd ko leen paas ne kii nag bëgg nga sox soxlaa danaa faj a tëjee nga ko yëg andil ma kay ci barke Alxuraan boobu kii kan ak ci baatin bu soobee yàlla wërsëg yëpp.

ba mu dem foo xam ne foogoo ko ba kéeméer Diallo moomu ba Cheikh Tidiane ba Kibaye ba képp xale bi muy bàyyi ko ba képp saasi ba képp waxtu bi ba képp place bi ku amoon jàngoro boo xam ne dañ cee lottoon yàlla ko yàlla saafara saafara ko wér. barke yonent yàlla Muhammad yàlla nañ tëj jël yàlla nañ tëj jël yàlla bu ñu jël lu jamono yàqu yàqu yàlla nañ tëj jël barke yonent yàlla Muhammad lépp luñ a def ci xaalis muy aw yiw da aji màkka da tabax da takk takk jabar ak lu mu mën a jaamu yàlla yàlla ñu fa yàlla yombal ci barkeel yéen a jàll Mouhamad barkeel Cheikh Tidiane barkeel suñu baay am nañ yaakaar lool ci ziar bi am nañ yaakaar lool ci Aliou Faj bi am nañ yaakaar lool incha allah ba xam ne mag dina fi bëri de dana bëri ci tànk bi bu soobee yàlla incha allah incha allah da ngeen xam ne da ngeen xam ne El Hadj Babou mbiram kaw rek la mukk. lu arrière mukk nag. yàlla nangul na ko. yàlla nangul na ko. barkeeb nangu booga. barkeeb nangu booga. yàlla ñu yàlla nangu. ndekki. xam naa ndekki nag barkeeb rek waaye tax def ko. ak mu jot ñu li bëgg daal ku si ñoom rek. yàlla nekk sama jotaay aajo. yàlla nekk sama jotaay aajo. yàlla nekk sama jotaay aajo. mam Paate Ndaw moo jur mam Baaba ko baax bay moo doo Lamin Ndaw ko baax mooy waaye xaliilu laay mooy tampel gaa tiijaani bàyyi moo doon la min daw ko baax xaliilu laay mooy ñeenteelu doomam jamoo for bem garek dalay xel gaa yi di ñu jaar di. alaaji Kaabu ak Amadou ay soppe lañ abul abbas man ca doom yaa gaa yi di jaani. Ahmedou ñi tuut tànk lañ xolam la jël dox ko sëriñam say xoti jaani. dañu ci waaye moo doon lamin ndaw ko baax. billahi yaay sunu wasilatu bàyyi moo doo yaa des. billahi yaay sunu wasilatu bàyyi moo doo yaa des. yal na yàlla yokk saw fan barke mooy ni salaat mi duna di lu mu gërëm nañu la Ababakar sant nañu la wallaahi law gërëm la Ababakar sant nañu la wallaahi Ababacar sant nañu la wallaahi daw gërëm nañu la Tijaani Ababakar sant nañu la wallaahi ndaw gërëm nañu la weeti kenn du jaani yaa jeex ci say ko Tijaani Ababakar sant nañu la بجاني أبا بكر صدق نجلا والله نوكر نجلا يوا يسيغ ينونان بالتلاري سيق نوكر نجلا يوا يسيغ ينونان بالتلاري سيق تجاني أبا بكر صدق نجلا والله نوكر نجلا

tijaani Abaa Bakar sant nañu la wallaahi ndaw gërëm nañu la xolam ba fees na leer ak rasoolo may sant yàlla te gëm xalifa alaaji muhammad moo gëm rasoolo Allah di Muhammad moo Rasul ala ni Muhammad moo gën Rasul solo damaa ngi jaale tawam bu baax ba Ababacar Ndaw sa jëf du suul man moo gëm rasul damaa ngi jaale tawam bu baax ba Ababacar Ndaw sa jëf du suul ma sant yàlla te nëbb xalifa alaaji mbokk yi alhamdulilah maa la kañ la 30 la 30 alhamdulilah ñëw bu dellu si mooy maa kon mbokk yi ñu ngi santaat yàlla bu baax sëriñ bi nag junj nañu ñun mbokki taalibe yi ak képp ku dem ci kër. xam ngeen sëriñ bi maam Baba Ndaw dafa nangul Seexu Tijaan nangul bay xalifa nangul yonenti yàlla Muhammad waaye xam ngeen ne sëriñ bi nangul na maam Baba Ndaw nangul na Muhammad xalifa mi bàyyee ko waaye nangul nangul na imam imam imam Alaaji Muhammad Ndaw ndax nii bi mu koy def gàmmo gi tas mu ànd ak mbooloo mi dem ci këram booba xalifa banque bi kon lim ñu tegtal ñun mooy buñ demee njaboot goo nekk suñ demee nañ jub xam nga kii ñu junj ah. la baykat boo waxoon dañoo ni meew ci lewet nooy ne aw dër boo di man maa di yow wallaay xam nga nit lii ko def <laughs> ni ci lewet nooy aw dër ba koo gis mu naan yaa di man maa ngi yow. sëñ bi yow na yàlla guddal sax. sëñ bi yow na yàlla guddal sax. wallaahi wax leen la góor ga waxoon. bokk wax ko nag mbokki taale bi yëpp. nga ñaan yàlla ñu delloo xam nga déwén. asalaamualeykum ñu lay siyaara. sëriñ bi ma sëriñ ñu lay siyaara. salaamualeykum ñu lay siyaara. sëriñ bi ma sëriñ ñu الأنعام على عباد رمة ويكفى لسيقنا قطب الورى من بابه لسيقنا قطب الورى من بابه من قاد كل قايف أكرام وبلدتي رسالتي مرسومة فيما بيان بوية المرسومة ويسرين بيون هم من قلات دفن يو نو نيون يتوقف في ñun ñooy ñi feebar te bëgg wér wéral ñu ñun ñooy ñi ñàkk te bëgg xam jox ñu ñu xam ndax ñun xam nañ sa ñaan du dégg maa bañ kon nag naka ñu jox loo dooto jeex te day ñu ko dootu ñu lépp dootu ñu wax ne jox ni yàlla yàlla ko def Thank you. Diálogo da União.